li ñuy xaar rek mooy que mu libéré euh, moom ci boppam mu libéré boppam libéré coalition am libéré Sénégal mais libéré aussi àddina mooy que tey mu sàmm kàddoom mooy la mu waxoon nampatal ci sénégalais yi ban ko joxaat deuxième mandat nampatal ci sénégalais yi ba nga xam ne référendum bi mu proposé woon le oui ñun ñëpp ñu ñafe ko ba mu am lim ñu diggoon daal mu sàmm kàddoom parce que li ñu gëm ba gëm ci Sénégal mooy que digga bor la mais ñàkk ko jëfe war la te tey jii moom wax naa ko waxaat ko ñu bokk ñu bañ ko moom mooy refléter suñu image fépp ci àddina te xale yi aussi dañuy jël référence ci moom parce que c'est la première institution et clé de voûte de toutes les institutions aujourd'hui li ñuy xaar bien que dinañ gëm ne ni day doon benn miracle bu ndaw mooy que mu ne non parce que fi mu ñu xëcc la ba tey jii donc euh, ni oui ni du ma wax su ma waxee ministre ñii dinañ liggéey ñii duñ liggéey donc mu nekk ay yoo xam ne daal ay act yu nu teg yoo xam ne tey jii euh, gëm na ne il va tout droit vers li nga xam ne mooy candidature te boo ko xoolee ni muy doxalee aussi di nga am benn soupçon ne euh, le président Macky Sall est en train quand même de peaufiner toutes ses stratégies avec sa coalition Benno Bokk Yaakaar pour se maintenir au pouvoir mais nag li ñuy ñaan vraiment mooy que yàlla na yàlla fëgg boppam ba mu respecter son engagement par rapport à sa personne parce que quand on di respect des institutions la première institution c'est la personne en tant que telle nit ki mu respecter kàddum donc bu boobaa nag vraiment yaakaar naa ne lu bëri dina changer ci wàllu tension électorale ci wàllu problème yi ñu nekkee stress bi ñu nekkee parce que tey jii moom l'avenir du Sénégal e l'histoire aussi du Sénégal mu ngi ci ñaari mbaggam